Euh, Sine TV del soit nañu ci euh, jataay bi nga xamante ne ni moom la ñu euh, dippee Sine Hebdo Sine Hebdo nag bokk na ci dañ ci dëxëñ lépp loo xamante ne ni mu ngi bokk nag ci xibaar yi nga xamante ne ni moom moo gën a fës ci biir semaine bi bokk na ci la ca gën a fës ñu ngi doon waxtaanee lépp loo xamante ne ni soxal na nag njàngum tànk yi ñu di ay xale yu jigéen mitital bi nga xamante ne ni nag ñu ngi leen koy teg léeg-léeg ñi di waa SCOFI ñu amal jataayu mel noonu ci biir xibaar yi nañ ci waxtaane it li nga xamante ne ni euh, moom moo di dawalkat yi euh, jakarta yi nekkee nag ci diwaanu euh, Fatick ñoom itam woon nañ nañu seen maire na ñoom dañoo maire ba futt gannaaw ñoom tali yi ak itam liggéey bi nga xamante ne ni day métti ci ñoom te léeg-léeg liñ ñu teg muy métti loole leneen ci biir xibaar yi lii di waa Sine TV amaloon nañu nag li nga xamante ni moom moo di euh, bës boo xamante ne ni dañ ko jagleel euh, lépp lu ñuy waxtaanee mu jëm ci euh, feebar boobu nag ñuy waxtaanee diabète ci bës yi ñu génne nag ñu invité woon ci askanu Fatick yëpp nag woon nañu ndaje moomee sax bokk na ci suñuy marraine ak ñi nga xamante ne ni moom moo di yooyu la parrain waaye itam leneen ci xibaar yi soxal na li nga xamante ne moom moo di tout tànk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk nag ci petite enfance ñoom itam. dajale woon nañu seen bopp nag foofu ca centre culturel euh, doon delloo njukkal ki nga xamante ne nii moom moo di seen euh, njiit mu di si euh, Sissoko Koulibaly waaye itam nag euh, dañ ko delloo njukkal remercier ko ngir liggéey bu rafet bi nga xamante ne ni nag liggéey na ko jëmale ko nag ci wàllu googu fii ci Fatick nag théâtre kat ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk nag ci wàllum art ak culture mer nañu nag gannaaw fes nag bi ba mu jeexee ñu doon joxe nag neexal yooyee nag amoon na li nga xamante ne moom moo di ak jiixi jaaxa jëmale woon ko nag ci ñenn ci ñoom koo xamante ne ni mi ngi tudd ab Ablaye Ndiaye moom nag moom moo euh, jëloon nag meilleur conteur waaye itam nag ñu gis ne euh, ci mujjantal ba nag euh, joñ koo jël neexalam jox ko keneen ba jamono ji ñuy wax ak yenn mi ngi ci kaso bi mbokk yi les tuut nag ñu daal di yaatal bàkk bi daal di jip ginnaaw nag boobule euh, bàkk nag moom soxna Marie Niane nag moom moo nekk nag ci euh, caméra bi li ngeen di gis ni ba mu leer loolee sax euh, moom moo sabab li ni mel doore xibaar yi li nga xamante ne moom moo di violence maanaam métital bi nga xamante ne ni ñu ngi koy teg xale yu jigéen ñi ñii di waa Scoffier ñi nga xamante ne ni ñoom itam ñoo ŋànk nag njàng mi ak njàngale mi ñoom nag ñu ngi dajale woon ngir nag waxtaanee métital koogu nga xamante ne ni xale jigéen ñi ñu ngi koy amee léeg-léeg Afrique waaye itam nag kii di uh, conférencier ba di uh, Pape Latri Diagne di point focal IEF uh, moom itam ma nga woon ca ndaje ba waaye itam nag dañuy déglu ki nga xamante ni moom moo di Fatou Dieng Ndiaye moom itam Marignane wékk na ko li nga xamante ne moom moo di taataanu kaayam. asalaamaaleykum wa rahmatullah moi la présidente régionale du CRAFS COFI le comité régional des enseignants pour la promotion de la scolarisation des filles. nous voulons participer on voulait vraiment participer parce que c'est un combat que nous menons avec nos ensemble auprès des autorités administratives politiques et religieuses et vraiment euh, c'est des choses que nous ne nii dañ ko war di pérenniser di ko def di ko nous ba nga nous ne euh, cible a atteindre euh, les élèves les parents d'élèves et, tout le monde Le euh, thème que nous développé les violences faites aux filles euh, ça interprète tout le monde Nous ñëpp lañ ce war a euh, salle bi dafa avec fees ak parce que vraiment thème bi thème intéressant ñuy remercier la présidente départementale du CEDEPS de Fatik, madame Diare et tout le toutes les femmes qui l'entourent. parce que vraiment nous nañ wax ni atteindre un atteindre objectif au début, c'était l'accès. Actuellement, on ne parle plus d'accès. Tu me dois demain, c'est école. Euh, Et puis, euh, elles sont les meilleures. Euh, ce qui pose problème, moi, le maintien. Le maintien. C'est vraiment, jigen ñang ci ñung ci ñung ci combat bobu baax Euh amna ay combat yo xamné gagné nañ ko d'avance wax nañ ko sank ci salle bi autant bo ëmbane yo xalé bu jigen ba dañ la daan dak mais légui fim toll grâce aux braves dames de la fi maintenant xale bu jigéen bi ëmbee mën na jàng ba à un certain moment mu arrêté pour des raisons de sécurité bu accouché ba pare mën na revenir aat euh, continuer njàngam donc loolu yëpp ay acquis yoo xam ne nii was euh, ko fi ñoo ko globalisé génnee sax ci euh, njàngi mi ak njàngale mi waaye itam nag dañuy dugaat nag ba léegi des si euh, ñuy waxtaanee nag lépp lu soxalit njàngi mi njàngale bi ndax nag ci bés yu ñu génn euh, ñi nga woon ca centre culturel régional bu Fatick nag xale yu tuut tànk yi nga xamante ne ni nag ñoom ñoo nekkee ci jardin d'enfants yi ñoom itam nag ñi nga dajaloon ak seen i jàngalekat doon delloo njëkkal ki nga xamante ne ni nag moom moo di Maymuna Sissoko Khouma waaye itam delloo it njëkkal képp koo jàpp na ci njàngale mi ak njàngale mi dañuy déglu ki nga xamante ne nii rek euh, moom moo di euh, monsieur Pape Latir Diagne àdduna ci suñu micro. waa xam nga xal gala souvent nit ñi bu ko dégg dañu yaakaar ne wutukaayu xaalis la parce que gala lool lañ ci xam pour collecter ay fonds mais nag bii c'est un gala de générosité gala boo gala bi li liñ ciy wutu mooy d'abord boole njobootu préscolaire te yaakaar na ñëpp tase nañ fi mais également fexe ba xale yi. seen man man seen xam-xam seen xarañteef ñu génne ko woon ko askan bi je pense que tey ku dugg si hall bi rek ba gis li xale yi teg fii te lépp mu nekk loo xam ne ñoo ko defar nga toog ci salle bi seetaan leen xool leen je pense que sa xol dina tooy bu fekkee wayjur nga bu fekkee parent nga bu fekkee rakk nga bu fekkee vraiment xale yi tooyal nañ suñu xol. waaw xale yi d' abord li ñu njëkk a wane mooy li liñ mën a def ak seen loxo parce que benn xalaatkat bu mag wax na ko nee na l' enfant pense avec ses maanaam xale ay loxoom lay xalaatee xool li def fi euh, di nga gëm lolu nangu ko bo duggee ci salle bi également je pense que ci sen mën créatif créativité ak sen ingéniosité xalé li njëkk def moy chanter hymne national je pense que tay vraiment ay mën nga dem sax ci ñu leen mag te mu duñ mëna a chanter hymne noonu loolu tooy na xoli ñëp ñu def aussi lo xamné yëm na ñëpp moy ñenti couple présidentiel li fi jaar depuis Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall aujourd'hui ils ont composer ces, ce couple présidentiel. Les élèves vêtus dans le style de ces présidents, de ces premières dames, ont vraiment impressionné la salle. Mais également à travers le sketch, à travers les poèmes, à travers le défilé des ethnies, à travers le défilé des nationalités, à travers le ballet. Le ballet serré, vous, vous l'avez vu et vous en verrez encore. Vraiment, je pense que rien n'a été laissé au hasard. Les enfants sortent ce qu'ils savent dans préscolaire. Vous savez aussi, ce les appelle la déconstruction, nous l'avons fait. y nous avons des représentations, préscolaire fait chaque Voilà, donc je pense que aujourd'hui, nous savons que les enfants dañuy def leneen lu je pense que xale buy fecc ak wëy du làkk anglais xale buy fecc ak woy du du réciter aussi correctement l'hymne national xale buy fecc ak woy du def sketch en français voilà je pense que loolu aussi genn nañ ko fi loolu mom xeyna na koy wax aussi représentation la rek luñu japp la mais préscolaire ay jangale kat ñoo fa nekk soxal sax dawalin bi ci biir euh, dëkk bi ñi nga xamante ni ñom ñu yor nag euh, jakartaay ñom dañoo mer nak euh, bo foot lolé sax Euh, jëmale ko ci euh, yenn autorité yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk nag ci diwaan gi xas nañu nag euh, tali bu bon bi ak tamit seen liggéey nañu koy defee métti na jaxasoo na lool ndax nag police yi di daqante ak ñoom guddi ak bëccëg sax moo waraloon ñu amaloon nag benn daje dañ ci déglu ki nga xamante ne nii rek moom moo di Ali Gueye ak Modou Ndiaye ci micro Marignane. waaw salaamaaleykum man la Ali Gueye dëkk fii Pël Gawa dawalkatu moto. tali bi ah tali bi suñu waxante dëgg rek tali bi moom metti na trop sax ndax parce que booy dawal booy dawal da ngay jënd euh, ngay góorgóorlu ba jënd sa moto bu bees tax te xam nga ku ku ne xam na dëkk bi nu mu xam nga surtout bu bu fin du mois di waaye jot dangay xëy sax pour nga am 4000 sax problème la euh, nga daba daxee ba am sa moto bopp ñëw benn oto ñëw tël la xam nga yàqal la ko c'est parce que yow amoo kayit yu mat quoi xam nga. ñu jaay doole a après nga perte sa moto noonu parce que da ngay mujjee reprendre aat sax jéem a daba daa xewaat tali bi daal métti na métti goo xamante ni foo ko foo ko rek weesu na ko. man la Modou vice président tey boo gisee borom moto yi ñuy kal nii nga ñëw fekk leen fi ñoom nga xam ne situation bi métti na trop gars yi leen a sonal mal gaare ay taa ñu leen ay taa leen jàpp suñu la ramassé nga fay 6 000 wala 3 000 loolu dafa métti. te liy yàq yi moom mooy yàqu moto yëpp moto trois mois lay am yàqu loolu du yoon war nañ defar dëkk bi defar lépp jàppale jeunesse Fatick yi suñ leen mënut a ubbi usine sax ñu utal leen xëy mais jakarta jakarta rek loolu du xëy. Sine TV muy nag euh, la chaîne euh, leader bi nga xamante ne ni sax tey euh, moom moo jiitu fii nag ci Fatick moom mi nga xamante ne ni nag moom la ñëpp di seetaan ci bés yi ñu génn nag amaloon nañu ndaje bu yaatu yaatu fi nga xamante ne moom mooy ci Fatick nag doon ñaax askan wi ci lu jëm ci wàllum feebar bi ñuy woowee nag diabète nag jataay googu yaatu woon na loolee sax bariwoon na nag ñi nga xamante ne ni ñi nga fa woon dañ ci dégg déglu ki nga xamantene ni mom eh, eh, modi suñu marraine d'honneur modi di Mame eh, Fatou ndjay ak ki nga ak ki nga xamantene ni mom modi directeur programme sin TV modi di Ahmadou Baye. may contane ci teewaay bi di di contane ci li ngeen ma tek di li ki oustaz wax ni du xaalis mais man daf ma neex ni def mako ndax wax naa ko ki ki ki initié télé bi sama xarit la te tamit li sag la sag la man ak nima tollu ci fatik ngeen jël ma def ma maran kon contane nas ma amone lu ëpp lolu dama koy indi. ñii ñoy gendarme républicain depuis 2012 ñoo ngi fi di and ak président Macky Sall di liggéey liggéey bu rafet ci Fatick xeyna tay la yalla ñew fayé ñu li li nak ñi wax ci jabet nak ñepp la soxal ndax gis na jabet. feebar yëpp la àndal ndeke feebar ànd jabet ànd naag tension jabet ànd naag euh, cardiaque jabet ànd euh, day day mën na la jox insuffisance rénale kon jabet lu jara moytu la may ñaan ñëpp muy góor muy jigéen ñun ñëpp ñuy moytu te dégg naa fi docteur bi ne di consommer suñu local bi muy euh, ceebu mbay bi moo gën a baax ka ñu consommer ceeb bi nga xamante ne importe la parce que day def ans balaa muy egsi balaa muy ñëw suukar bi da koy gën a euh, concentré aussi ci ceeb bi kon ñu moytu ceeb bi ñu ñaan yàlla ñu ñaan jigéen ñi ñu moytu. fexe ba sensibiliser lépp loo xam ne maanaam tey euh, am na ci Sénégal euh, ci ñi nga xam ne ñoo ñoo yor jàngoro bi ñi nga xam ne moom la ñuy wax jabet ndax ku xam jabet xam ne dafa dafa doon jàngoro boo wax ne dafa xaw a sensible. am na ñu ko am bon euh, mënuñu ko tenir am na ñu ko am ni ñu war a sooxaaleeg moom wala ni ñu war a dox ak ñoom loolu ñoom xamuñu ko. te aussi lu mel ni mooy mun a tax ñu ñoom ñi koy am ñu bëri xam naka la ñuy fexe ba bay bay dox ak li eh, nga xam ne rek mooy mooy xeetu jàngoro boobu ñuy wax muy wax jabet ndax jabet comme ni ko docteur mu waxee maanaam boo ko xasee am feebar yi daje sa dafay bari lu ci mel ne ay tension ak yooyu dafay bari moo tax tamit ci sensibiliser nit ñi daf ci am solo moo tax Sine TV euh, amoon pas-pas ak yéene ñu ne dinañu taxawal bis boo xamante dañ koy def spécial pour def benn conférence boo xamante ni nañ ci waxtaan lépp loo xamante jëm na ci li nga xamante ni mooy wàllu jabet euh, am nañ ci tawféex nag bu ba am nañ ci ndam ndax euh, liñ ci séntu woon ci waxtaan wi ak docteur yi fi ñëwoon lépp liñ ci waroon wax yëpp wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu wax wax nañ ko ci bis bi. nank nag euh, dugg ci li nga xamante ne ni moom moo jëm ci wàllum cosaan ak aada ndax nag. Euh, ñoom waxtu wi ñuy euh, wax ak yéen dañoo mer ba foto ndax nag seen benn natango bi nga xamante ne ni dañu ko euh, jël rek dem yóbbu ko ca police tëj ko gannaaw nag bañ doon joxe neexal yi nga xamante ne ni nag dañ doon tànn ñi gën a fës ci lu jëm ci wàllum compte ak lu jëm ci wàllum fecc ak way ñu gisa na ci wàllum compte bi kii di Ablaye Ndiaye nag moom moo jël yëf yi moom Ablaye Ndiaye sax moom mu jàpp ne moomee la ci ndaje ndaje mi nga xamante ne ni nag euh, ministre bi ñu gàll nag lépp lu jëm lépp lu jëm ci wàllum art ak culture euh, mi ngi woon nag ca ndaje woowu nag ndax teewe woon na ko euh, moom Abdoulaye njaay sax ci la jokk daal di taxaw nag joxal leen nag baaraam gannaaw ba mu yëgee ne moom neexalam dañu ko jox keneen noonee sax moom ab Abdoulaye Ndiaye nag ci la mujjee ci police bu Fatick bi Baba Thioune àdduna ci micro am di ñaan Euh, man la Baba Thioune di acteur culturel dëkk euh, Gossas euh, dans la région de Fatick. affaire yi ni mu demee mooy que ne ku ne xam na ne fes nag bi jaar na fi douzième édition bi ñu ko doon organiser fii à Fatick mu amoon ay compétition yu bari ci biir compétition yi mu amoon lu ñuy wax compte maanaam lépp bi loolu amee ñu daal di def audition yabale ci département yi nekk ci région bi yëpp daal di woote pour ñu def audition bi ñu ko defee ñu am benn élément bu ñu woowee Laye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye itam dëkk Gosaas ñu koy wax Laay Poobar moom mu daal di postuler wu ak yeneen compteur bi ñu postuler woo ba pare ñu indi leen fii centre de centre culturel bu Fatick defal leen audition yi bi ñu leen defalee audition yi moom mu génna bu mu génnee daal di gagné représenter d'abord le département de Gossas parce que compétition yi dafa am compétition régionale ak national en plus tamit mu représenter la région de Fatick ci compétition nationale bi bi ñu ko defee yàlla def ñu gagné ba compétition yi jeex mu gagné bi gagné kérok ba ci kaw podium bi ministre joko trophée joko tamit lettre bi wonné man na jël ci ségam ñu tok di xaar le 9 le 12 le euh, fess nak bi jeex ba dembalé won le premier je pense ci la nuwo pour ñu ñëw fi à Fatick pour def pour jël ségi yi bi ñu ñëwee jël ségi ñu tok ci salle bi le ministre mi ngi fa gouverneur ak autorité yi centre culturel yépp ñu ngi fa ak lauréat yépp bi ñu toogee foofu ci la ñu woté wo compte Euh, ci lañ njëkk sax ndax lii njëkk sax erreur bi njëkk am mooy ñi gagné art culinaire Gossas la dëkk ki gagné coiffure Gossas la dëkk te seen tableau yi ñu leen jox tamit dañ cey defoon ne 2 millions la ñu bi du ñëwee mu am répartition boo xam ne ñoom bi ñu accès foofu lañ koy doog a xam ndax dañ leen a jox 2 millions daal di leen a daal bi séddale ko ñeneen ñi doon participer ñoom ñu jox leen 1 million kese alors que 1 2 millions lañ leen déclaré woon ba foo dem millions lañ bi ñu paree ci ñaar ñoo ñu ñëw ci compte bi daal di woo Laye Ndiaye bi ñu ko woowee mu ñëw daal di ne ko ah woowuñ ko sax dañoo ne prix compte 2 millions daal di woo ku ñuy wax Jibi Ndiaye bi ñu wooyee ku ñuy wax Jibi Ndiaye daal ne moom moo gagné ci la Abdoulaye Ndiaye jugee yëkkati trophée bi mu yoroon ak lettre bi ko ministre bi joxoon ñëw taxaw ci watu ministre daan ne leen man maa gagné man maa gagné prix compte bi sama trophée mu ngi nii sama lettre bi ma ministre bi joxoon tamit mu ngi nii ci noonu. ci la ko ki yoroon micro bi di chef de protocole ministre daan ne ko non demal nga toog nga noppi mu ne ko non may ma ma wax parce que damaa war a wax ndaxte man maa gagné ci noonu mu am jàppal noppil ak toogal yooyu ci la gouverneur joxe instruction que na to woo le commissaire ne ko bu ko génne laay continuer xamal ko ne ko man maa gagné sama trophée ngi ma man loolu laa leen expliqué après ci noonu la ko commissaire bi wax moom am ay échange nu mu génne ko saal bi bi mu ko génne mu après ñu waxtaan ak moom ba ñoo ñëw toogaat. ci la wax ji gën a continuer bi mu continuer laay xamal leen ne man comme nee ngeen naa toog naa toog mais man maa gagné après gouverneur ci la ñëwee am waxtaan mu am nu mu expliquer commissaire bi nag ci lañ gisee mu jékki-jékki ñëw woo ay yóbbu ko ci poste bi d'abord ci gouvernance bi ñu paree foofu ñu gis oto bi ñëw foofu jël si ko ñu téye ko démb booy xool 11h ba tey jii may wax ak yéen fii bi ñu xëyee ci suba ba heure bi presque une heure léegi mu jot mi ngi ci kaso bi loolu benn injuste boo xam ne xamuñu loo noo koy tudde ci xibaar boobu sax la ñuy euh, ñëwee ci li nga xamante ne ni euh, suñu euh, invité Tay, ñu ko fi dalal ku nekk nag xam na ko muy nag jigéen joo xamante ne la di dox ci côté développement waaye itam nag di wax ci social moom moo nekk nag présidente des femmes catholiques nekk tamit présidente FAFEJ nekk présidente les dames dévouées ak li nga xamante ne moom les femmes républicaines bokkit ci li nga xamante ne ni union communale Euh, des dames de Fatick moom itam kooku la ñuy wax nag euh, Berthe Faye euh, moom nag moom lañu dalal tey ci studio Sine TV bi Berthe maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Bécaye. Mhm. di la sant bu baax a baax di sant équipe Sine TV yëpp ci invitation bi. Mhm. Ah, di ñaan waxtaan bi ñuy waxtaanee fii tey yàlla na ci Fatick yëpp gis njëriñ. Mhm. ba au-delà de Fatick. seen bopp. ñëpp gis ci seen bopp. Euh, jërëjëf moom nag moom moo nuyoo noonu léegi nii euh, ngeen waajal lu mag euh, loo xamante ne ni mais avant seen événement bi yëg-yëg bi nga am d'abord ginnaaw bi nga toogee fii Sine TV invité la. waaw donc maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci ñëw bi ma ñëw fii tey ci studio Sine TV jàkkaarloo ak image sama xarit sama wëllëre sama am di jàmm. waaye sama sëriñ aussi muy euh, Mouhamed Soxna mm-hmm. donc euh, nekkoon sama xarit nekkoon sama càmmeñ euh, féete woon ma fu fu sori waaye yàlla suñu borom dogal loo xam ne mënuñ ci dara dañu koy ñaanal voilà dañu koy ñaanal fa mu nekk gënal ko fii mm-hmm. waaye fa mu nekk aussi ñun mu ñuy ñaanal parce que suñu xel dal na ci moom trop trop trop

waaw ñu ngi waajal benn meeting meeting bi nag ñu ngi ko tuddee meeting de lancement politique euh, ginnaaw bi nga xamee ne euh, pendant des années euh, ñu ngi boole ñaar yi muy développement ak politique waaye di liggéey di ci ànd ak suñu ay càmmeñ yu ñu daan woowee responsable politique yàlla dogal je pense depuis. 2019 euh, euh, la démarqué wu carrément donc euh, def son excellence le président Macky Sall moom kenn sama leader ginnaaw bi nga xamee ne wax dëgg yàlla yàgg nañ di ànd ak suñu suñu càmmiñ yi ci liggéey donc ba gis ne war nañoo mën a taxaw mhm. donc ànd ak ay suñu ay ay ñooñ ànd ak jigéen ñi mhm. donc ngir beneen doxalin mhm. pour le développement du de Fatik biñ ci nekkee nag boobaak légui yàgg na euh, di béy waar yooyu wàll wu nekk euh, ñu taxaw nak ñom ci bopam euh, mbootaay yi nga xamné ñom la bot bari won lol ba tax ma taxawal ben fédération bu ñuy wax fédération pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes euh, donc dakkantale ko en même temps développement et politique donc jigen ñooñu ñëpp bolo taxaw ne nak dafa jot pour ñu def ben meeting politique boo xam ne wax dëgg yàlla euh, dinañu wone ne ñu ngi ci developpement bi waaye nag bu dëkk bi soxlaa ci wàllum politique aussi euh, war nañ cee mën a wone suñu bopp. Euh, la kañ ngeen jàpp journée boobu. journée boobu ñu ngi ko jàpp jàpp le 9 le vendredi 9 février. Mhm. bu soobee yàlla àjjuma bii tey yaakaar naa ne bu dellusee ci waxtu wi dinañu fekk vraiment ci ay yëngatu yu mag a mag. lii bi fan la. daral lañ koy defee. Mhm. daral lañ koy defee ndax nag yàlla dafa dogal. Euh, Daaru Salaam laa laa dëkk euh, waaye jamono yi dama nekk Darel donc nekk Darel euh, ànd aussi ak waa Darel ba ma fi accès ba léegi ñu jël ma teg ma foo xam ne wax dëgg yàlla sama modestie jàpp na ne yeggul foofu ñu bëggal ma seen bopp téyal ma seen bopp waaye itam Fatick yëpp téyal ma seen bopp ndax li ma wax barke démb rek Berthe Faye fu ko neex samp fu ko neex mitinge fu ko neex wootee parce que nekkatul Berthe Faye yu quartier. Mhm. waaye Berthe Faye yu Fatick la. Mhm. waaye Berthe Faye yu Sénégal yépp la. Mhm. voilà donc euh, ma woote ko nag daral ndax si boo bootee ay jigéen da ngay waxtaan ak ñoom. du sama décision. waaye bi ma wootee jigéen ñi ñu waxtaan ci dalal ñu ci ëpp daal. ne nañu ko defee daral moo tax ñu fas yéene koo defee daral incha allah. d'accord kon yaa ngi woo euh, mbootaay yi nga jiite parce que mun naa ne euh, lu toll ak juróomi mbootaay ba ñeent bootaay des fois. xam naa sax liggéey bi na andi coono beeg yooyu noonu parce que nga boot mboot mboot mbootaay bu toll nii euh, dafay métti euh, des fois du andi complication ak yooyu parce que mbirum jigéen liggéey xaalis ak yooyu noonu complication yi nag bari nañ ci mhm. bari nañ ci waaye nag dafa nekk loo xam ne dañ cee yàgg mhm. donc euh, je peux dire que depuis quatre-vingt-dix-sept ba léegi maa ngi yëngatu ci développement donc du tay 98 ma dugg ci politique and ci ak son excellence le président Macky Sall bobu nekul président bobu nekul ministre bobu il était le DG de la Petrosen donc ci la ma njëkk recevoir euh, kërëm ñu waxtaan man ak sama mag bu jigen bëss bobu may génn yaakaar naa ne tey enveloppe millions yi ñuy wax boobu enveloppe ñeenti junni la ñu jox donc mu nekkoon ay millions ci ñun mhm. parce que dañoo fas yéene woon a ànd ak moom mhm. euh, di wax ne boobaak léegi ñu nekk si dafa mel ni dañ cee voilà donc euh, pour wax rek ne métti na coow li bëri na riir bi bëri na mbirum jigéen doy na donc euh, mais nag da ngay rek bu da nga wu objectif am a yegg je pense que yenn détails du la teye bien que ay ay jigéen lañu. mais yenn détails yëpp du la teye parce que boo gis rek gis nga bu ko dépassé euh, boo xam ne géré nga ko donc dañuy ñaan yàlla rek mu gën ñoo jàppale rek ba li nga xam ne moo nekk ci suñu ginnaaw euh, vraiment ñu ñu ñu mun koo ñu mun koo géré. Mm-hmm. voilà di wax ne comme ni nga ko waxee nag mbootaay yi yëpp. Mm-hmm. ñu ngi ci biir. Mm-hmm. ñëpp la ñu woo bàyyiwuñu kenn dama ne képp koo xam ne rek sax bokkoo ci mbootaay yi te groupement nga yor rek berte.

responsable politique yépp amuñu ak kenn xaar ma yàlla donc ki nga xam ne moom moo ñu boole mooy le président euh, de la république moom moo waral ma woote donc duma leen ci woo ñoom ñépp ñi nga xam ne ci moom lañ jokk ñu ñëw jàpp ci bës bi ndax mu gën a rafet ndax nag képp ku ci aye ci ñoom su ma wooyee damay teew <laughs> voilà euh, ngeen bàyyi nag euh, ba nga xamante ne ay diir moom moo des ci élection yi ngeen amal bës boobu mm-hmm. xanaa da ngeen gën a fësal taxawaayu Amadou Ba wala ay bës bi mhm. euh, bi ñu koy jàpp euh, c'était pas sax ci cadre campagne mhm. donc euh, plan d'action bu ñu tëral la mhm. donc ñu war a dérouler ay activités ba yegg si foofu ba ñu fa accès ñu jàpp datu le deux le deux bi foog naa ne tey la woon donc tey lañ ko jàppoon ci la ñu ma woo benn kilifa ni ma la deux boobu de campagne bu dee am moom mooy nekk veyu campagne te góob ma di nga ci am autorisation donc ci laa ko dàqee yóbbu ko ajjuma bi ci topp ndax nag boo gisee may jàpp datu ajjuma bi samedi ak dimanche souvent dafay am ay ay ay xew ay activité de grande envergure mm-hmm. soit ay xewu famille lay doon wala euh, commune bi ci boppam soxla wala département bi soxla te bu boobaa ñun euh, suñu soxla dafay doon boo xam ne bu néew la mm-hmm. moo tax ñu jàpp ko bésu ajjuma euh, di ci woo ñépp nag pour ñu ñëw teew di bëgg nag wone nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal mm-hmm. waaye itam bëgg a wone ne. Mhm. ñun ñu ngi jokk ci son excellence la président Macky Sall. muy APR wane doole jigéen. wane doole jigéen. wane doole jigéen. Mhm. parce que nag comme ni nga ko waxee Bécaye. Euh, góor ñi fiy woote ñëpp. Mhm. seen bës balaa rafet ñun jigéen ñu teew. <laughs> kon nag yaakaar naa ne jigéen ñi bu bu ñu wootee. dafa war a rafet. wala mu gën a rafet bu góor ñi wootee. ñu am ci yaakaar bu baax a baax nag. donc euh, di wax rek ne euh, dañoo bëgg a wone rek ne fa ñu ne woon ñu nga fa ba léegi. voilà loyauté suñu fidélité suñu suñu constance euh, ci ki son excellence le président Macky Sall. maintenant vous êtes autonome. waaw donc lolo, lolu nga wax itam. ngi mhm. ci biir. Mhm. Euh, bëgg nañu won aussi waaw bëgg nañoo woon góor ñi jigéen ñaa ngi fi. Mm-hmm. Euh, dafa dafa am kàddu gu may wax boo xam ne xëy na des fois duy neex yenn responsable politique yi. Mm-hmm. Euh, wala xëy na du neex yeneen jigéen yi ma dendal yi nga xam ne peut-être dañoo jokk ci ay responsable politique yoo xam ne euh, nekkuñu Macky Sall. Mm-hmm. ñi Macky Sall meññ. donc ñooñu ñooy seen responsable politique mais damay faral di leen wax ne yéen da ngeen am ay leader politique ñi may bokkal mbootaay yépp ku ci nekk xëy na am nga leader politique. mais man nag. ah awma responsable politique boo xam ne passé na son excellence le président Macky Sall. Mm-hmm. ñoom ñëpp nag samay càmmiñ lañu. Mm-hmm. ku ci ayé ku ci soxla. Mm-hmm. ku ma ci wo dana ñew ak sama ay nit. taxawu la bës a rafet ma dellu. waaye nak itam wax dëgg yalla ah man nak sama bopam la gënal du bañ na la. waaw man ci sama bop parce que demna, demna, dema dem ba xamné ah wax dëgg yàlla suñu càmmiñ lañ waaye nag ëppalewuñ ñu lu bari. Mhm. bu dee ëppale nañ ñu sax. Mhm. ëppalewuñ ñu dara. Mhm. donc lu ñuy laajte lu ne ñun war nañ koo mën a laajte. donc lu ñu liggéey ñu ngi liggéey lu ko raw. parce que ñun ñoo nekk ci base bi. ñun ñooy ñooy yeewandoo ak waa dëkk bi ñun ku soxla muy jigéen muy góor boo ñëwee suñu bunt yi ngay fëgg. dégg nga ñun ñoo njëkk a régler problème yi bu ñu jaaxlee ci la ñuy yéeg ci ñoom pour demander leen. service te demander leen souvent ça dafay doon loo xam ne lu jafé la. parce que ku ci dem ba am ndombol tank des fois euh buñu la buñu la soxla du la jot. Euh, buñ la woowee duñu la jot mhm. euh, xëy na xat-xat yi ñëpp leen soxla dëgg la naam mhm. waaye nag dañoo war a bàyyiwaat seen xel ci askan wi parce que askan wi ñoom ñoo tax ñu yegg fa ñu yegg d'accord euh, te yéen seen loxo tout le temps mi ngi ci développement parce que bu ñu xoolee ne du ay benn yoon wala ay yoonu yoon tey nga organiser mhm. ay bés yoo xamante ne ni ay bésu tàggat la ci jëmale ko ci jigéen ñi ni ñu defaree saabu eau de ak yooyu yëpp yéen a ngi ci tolluwaay bi foofu noonu succès bi tey bu ko doon natt tey fan la toll. waaw fi mu toll nii maa ngi def euh, situation boo xam ne euh, bu bés ba bu mm-hmm. àjjuma mm-hmm. Euh, dinañ ko gën a leeralal askan wi mm-hmm. waaye jamono jii may wax ak yow man mii sama modeste personne bi formelu naa lu tolloog juróomi téeméeru jigéen yoo xam ne si ay filières yu yu diffé yu différente lañ leen formé donc ñii formé nañu leen ci transformation euh, produits produits euh, céréaliers euh, transformation fruits et légumes nous nous ñu ñu nous formons pâtisserie nous nous formons qui ci saponification nous nous formons huile huilerie transformation huile baobab huile moringa donc nous vraiment nous ñu ñu qui marketing voilà entrepreneuriat mm-hmm. donc pour dire que nous ngi lambes, ñu ngi lamb wet bu ne euh, te loolu nga laal dafay tax ma ñew euh, sante euh, ay kuréel yo xamné son excellence le président Macky Sall tégal nañu ko fi depuis mu nekk ci njitu réew mi ba légui mom moy lu ci melni ni DRFJ nga xamné présidente fédération laa fa donc am luma te ñaari junne jigéen yo xamné jaar nañ ci samay loxo ñu financer leen ci nano crédit bi donc lolu bi mu weesee ñun Fafège am nañ suñu ligne de crédit bop bo xamné 5 millions yo xamné fonds propres yi berthié lan fay la diko rouler ci bir jigen ñi pour bañ ñu ñak parce que da fay tollu moment bo xamné peut-être DER bi euh, du mun satisfaire ñëpp. Mhm. wala DER bi plateforme bi tëj na benn instant. Mhm. té say jigéen nga ngi taxaw amna ño xamné soxla nañu. Mhm. tu es obligé vraiment en tant que sen njiit nga dem outil ay fonds ngir jox leen ñu ñu nekk continuer sen sen activité donc pour dire que ñu ngi ci euh, formation yi waye ñu ngi ci financement yi aussi ci suñuy fonds propres donc formation yi aussi 3FPT gumé nañu ci bu baaxa baaxa baax waye baax. waaye ay partenaires yo xamné ci melni ni euh, Sine donc la directrice. heure boo xamee ne am na formation moom tam daf ñuy woo may ñu ci ay ay ay ay ay femmes yoo xam ne nañ ci maam bu mbay mhm. donc muy nit koo xam ne vraiment moom itam mu ngi liggéey bu baax a baax a baax ci développement dëkk bi mhm. ba pare dafay yaatal maam bu mbay dafay jàppale euh, moromam mhm. moromi jigéenam parce que mën naa jàpp ne moom actrice de développement la mu jàpp ne mu gis ne man actrice de développement la mu am fu may fu mu may xatalee wala fu mu may baaree waaye moom mooy nit koo xam ne lu mu am lu ne woote may naa la nanga mu jigéen nga seet ci say jigéen ñoo xam ne yebal nga leen ñoo ñu dem mu tàggat leen ci formation mu amal leen njëriñ amal njëriñ askan wi yëpp. d'accord euh, mais euh, yéen ngi xalaat jigéen yi un jour nga ñëw ngeen dimbale boobu ñu góor ñi parce que yéen moom <laughs> seen biir yëpp dañ ko yemale ci biir jigéen ñi. waaw loolu sa question boobu dafa am solo trop xam nga lu tax. Ah. Euh, ndax fa fesh bi bima ko euh ay mbootaayu jigen rek la doon yor mhm. parce que yii ma la limal ni yëpp ay jigéenu kesse ci ne mais fa fesh bima ko taxawale dama ne góor ñek jigen ñi ñep ci wara bokku ci d'accord euh ba taxna mm, nga gis fuma bind emploi des jeunes euh, emploi des jeunes bobu góor ak jigen mom mo ci yem mhm. emploi des jeunes ñun amuñ ay emploi ñu jox nit mhm. mais dinañu uti ay emploi pour jox xalé yi ba taxna bir fa fesh bi am na li ñuy wax fafège masculine mhm. boo xam ne euh, créé naa ko benn groupe boo xam ne presque def na cent 150 jeunes mhm. yoo xam ne ñu ngi ciy waxtaan di xool naka la ñuy def ñoom ñëpp ku ci nekk préparer sa CV ñu xam ne yow lii mooy sa qualification mhm. wala yow lii moom nga bëgg a def ñu xam ko su ko defee ñu jéem a xam piste yi ñuy jaar pour dem jàppale ji leen bu ñu gisee euh, ku mel ni Bécaye koo xam ne mën na mën na jàppale benn jeune Euh, ci dara ñu dem si bekkaay ne ko ah ñu dimbale ci suñu xale bi mhm. ndax li ngay def loolu la bëgg def jàppale ko ci mhm. nga jël ko ñu dem si biram wax même chose dem si keneen wax même chose mhm. noonu la ñuy def ak xale yi pour jàppale leen mais ñun amuñu lu ñu jox xale yi euh, emploi direct dañuy dem demande ji rek indil leen donc di leen encourager aussi ces jeunes là euh, di wax ne toll nañ situation boo xam ne bu difficile la parce que jeunesse da ngay bëgg a tëb rek am tëb rek tekki teral sa ay waajur comme ni ñu koy waxee souvent mais yëf yi euh, doy na waar au niveau de Fatick. doy na waar ci xale yi au niveau de Fatick jigéen ñi ñoom dañoo jël seen courage ci seen ay ay loxo. pour mun a doxal. Mm-hmm. parce que euh, doxaluñu doxaluñu côté jigéen ñi doxaluñu côté góor ñi dañ ñoo bàyyi rek noonu aaraat. Mm-hmm. donc ñun nag ñu organiser wu pour jéem a jéemal suñu bopp ku ñëw rek fekk ñu ci. ñu ñëwaat ci journée bi nga ne date bi kañ la. date bi c'est le vendredi 9 à partir de 17h. à Darel à Darel Nous mhm. euh, remercions son excellence monsieur Macky Sall ci li mu jàppale jigen ñi tamit. Mhm. d'accord mhm. Euh, kon appel bi nga lancé la. Euh, ci góor ñi ci jigen ñi. ñëpp ñew ci Darel. le 9 à partir de à partir de 17h. voilà sa dernier mot c'est quoi. waaw sama dernier mot moy appel bobu nga avez légui rek. di dellu ci waat di wax son excellence le président Macky Sall dañu koy sante di ko gërëm ñun jigéenu Sénégal parce que gis nañu bunt yi nga xam ne ubbil nañu ko pour ñu mën a demal suñu bopp bañ a tee xaar kenn ma di ci woo jigéen ñi ñépp nag koo ci xam ne defoo dara wala amoo ci loo jàpp nga ñëw Fafech ubbil na la say buntu nga ñëw ñu jàppale la ci ay formation waaye jàppale la ci ay financement yu ndaw yoo xam ne di nga ko mën a débuter say activité ba ba ngay demal sa bopp donc di ci woo aussi jeunesse bi yépp waaye di bépp responsable politique boo xam ne yaa ngi Fatick dalee ci ministre Cheikh Kanté ministre Thérèse fay ministre Biram fay ah ñetti ministre yi fi ne maire dëkk bi ah donc ak bépp directeur général ak bépp daaj ñi nga xam ne Macky Sall jox na leen ndombol tànk ñu jàpp ne bés bi may woote bésu Macky Sall la du bésu keneen donc ñu jàpp ko euh, ñëw wuyu si jàppale ma ci sama bés ba mu yegg waaye nag du ma bàyyi itam ñi nga xam ne ñoom laa àndandool ci euh, ànd nawle bi doon liggéey ak ñoom ci euh, élection locale yi weesu euh, ci Mamadou Camara jiite wo jiite ko maa ngi leen di woo ñoom tonton Isaaxa mhm. ñoom baabakar mbay Diouf ñoom ñëpp jot nañ ñoom Blaise Blaise kan mhm. ñoom le DG Ousmane Baradione mi nga xam ne barki Dembo Ndiaye moom itam la fi ameel bés bu bës bu rafet mhm. donc di ci woo ñëpp bàyyiwuma kenn El Hadj Abdoulaye Lam donc maa ngi leen di woo ñoom ñëpp Euh, di woo Alaaji Souleymane Diouf ñoom ñëpp maa ngi leen di woo waa Fatick su ma limee sax xëy na damay juum parce que nag Macky Sall def na fi ay ndombal tànk de bari na de bari na lool bari na lool mhm. ku ma limul ñoom may sama yakoor ku ma limul rek xamal ne yaa ngi si biir képp koo xam ne Macky jox na la ndombal tànk daal maa ngi lay woo ci sama bés bi waaye di ci woo surtout jigéenu Fatick yépp ñu ñëw wuy suñu jërëjëf euh, kooku nag kooku nekkoon nag suñu invité tey mu di euh, Berthe Faye wax naa leen ko léegi nag moom moo di euh, présidente les femmes catholiques nekk njiitalu Fafej ak njiitalu jigéen ñi nga xamante ne ni nag ñoom ñoo di peel seen bopp nag les dames dévouées nekkit njiitalu jigéen ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci kuréel googu ñuy woowee les femmes républicaines bokkit ci union communale des dames de Fatick kooku nag moom mooy invité ñëpp ci ajuma ji nga xamante ne ni moom mooy yemook juróom fa fan ci weerum euh, février fi nga xamante ne nii euh, moom mooy ci euh, Darel jërë ngeen jëf mbokk yi li nag moom moo nekkoon jotaay bi nga xamante ne ni moom moo di Sine Hebdo ñuy jox ñëpp nag rendez-vous ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf